ñun Sonko la ñu bëgg ñun. je pense que les patriotes euh, ñi ngi ci terrain bi bu baax di wane seen position mais dafa am ci benn point faible bu nga xam ne moo leen sonal mooy seen communication dafa wàññeeku. ba pare amuñu ay éléments de langage ñaar yooyu dafa am solo ci xeex maanaam communication bi des na ba pare tamit aussi amuñu ay éléments de langage xam nga ñiy jàmma ñoom ñi ñuy jàmmaarloo dañoo am élément de langage mooy dañ naan dañuy dem dialogue foo leen dégg ñu naan dialogue inclusif dialogue inclusif dialogue national loolu mooy seen élément de langage loolu la ñuy bind ci journaux yi loolu la ñuy wane au niveau international parce que loolu moom mooy tax waa international toog mën a xaar mais yéen mënoo leen a xaar parce que mbir mi tey jii lañ waroon a dem ci isoloir yi pour voter donc amatuñu temps su fekkente ne seen élément de langage à chaque fois day mooy focus focus looy focus des fois ci yenn moment yi da nga war a changer sa élément de langage parce que focus bi bi nga koy wax focus ci élection moo la taxoon wax mais élection yi tey la waroon a nekk mais nekkul kon ñoom waroon nañoo am ay élément de langage yu nga xam ne moom lañu ñu war a utiliser pour dem bien vrai que génn nañ ci mbedd mi mais mbedd mi biñ ciy génn tamit euh, ñoo ngi naan libérer les détenus mais les détenus waa ji wan na leen mi ngi koy libérer parce que mi ngi libérer euh, ay centaines waaw libération bu nga xamante ne yàlla rek a xam parce que parmi ñi nga xamante ne dañ leen libérer il y a trois cent et quelques yu nga xamante ne. dal leen a takkal ay bracelet électronique mooy ñooñu maanaam heure bu leen neexee ñu jëlaat leen delluwaat leen ci kaso bi waaw kon waa ji moom li muy def da ko waxul mais ñi am lecture bi ci ginnaaw dañ ko gis man dama jàpp ne waa ji dafa pareegul pareegul de li bëgg mooy la reprise. Euh, di processus électoral fexe ba delloo siwaat processus bi delloowaat ko zéro ndax boo xoolee coow yu ndaw ndawaan yi am ci conseil constitutionnel bi man dama jàpp ne Macky Sall dafa maîtriser wul quelque part ay ñaari nit wala benn nit ci biir conseil constitutionnel bi parce que li tax jumaay dugg ci list bi loolu moom lu ko jaaxal la te ni mu jëlee rapport bi dafa gaaw moom ak nim jële woon Ousmane Sonko ci mbedd mi ñoo ñooyam fi nit ñi toog yaakaar ne du ko jëli dañoo jékki-jékki rek mu jëli ko ñu jëli ko ba pare nit ñi daal di dox tuuti dem toogaat donc lu toll ne élection nga jékki-jékki na ko taf daal di koy reporter ñëw toogaat utilise waat yeneen i élément mooy fexe ba jël les candidats yi spoliés wala bokk les recalés woo leen dialogue dugal leen ci dialogue bi boole leen ci créer benn majorité artificielle contre la majorité factuelle mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy oppo vrai opposant yi nga xamante ne daanaka majorité sénégalaise bi moom lañ àndal mu wax leen ne date baa ngi nii damay quitter damay dem mais comme bien de fois la fi président bi toog wax ay mbir yu leer nañ ci làmmiñam ba pare génnaat ci dara fekku ko ci dara kon loolu lu muy wane moom mooy rythme bi nga xamante ne moom la opposition bi di demee moo nekk rythme bu baaxul te dafa bari y a des gens yu nekk ci seen biir yu leen tax yu nga xam ne ils ne sont pas ils ne sont pas sincères sincère wuñ ci lu ñuy def nii mag yi mel nii ni mu fi nekkee nii di def ko sudul noonu wala ni mu fi nekkee di leen nax loolu ñoom xam daf am na ci ñu nga xam ne dañ ci déggoog moom mu continuer di def politique dilatoire di leen waye diloo am na ci opposants yi ñu ci bëri ñu nga xam ne xam nañ loolu parce que ñoom génn Ousmane Sonko daf leen a arrangé wul loolooy am loolooy liy dëgg mais gis nga bis buñ toogee bis bu patriote yi toogee toog xool waa ji génne na ay éléments de langage am te moom mooy pacification de l'espace public damay bëgg a indi jamm décrispation ay vendredi de de jéem a jéem oyofal li nga xamantene mom modi euh le le climat de la paix nga xamné da nan jamm moko ko tax a jóg oyofal li nga xam modi jamm ñi amna ay langage yu dëgëran ah.

parce que fu mu toll nii communiqué bi mu def démb daf ci bind ne président de la république maanaam ministre de l' intérieur moo ko bind euh, ci turu président de la république comme quoi que convoqué ne ñëpp ñu ñëw jam ñaajo gis nga jam ñaajo sax la ko defee ji pour ñi nga xamante ne kas maanaam waxu pale euh, voilà daf leen def daf leen daf leen neexul ku dem ci palais bi rek dañu jàpp leneen la mu yóbbu leen jam ñaajo ne woon na ñi nga xamante ne ñoom ñooy les candidats retenus ak les candidats recalés dañu ñëw foofu ñenn ñi maanaam seize na duñ dem trois yi dem bis bu ñu demee ba taxaw centre Abdou Diouf bu ñuy wax mais dañ laan candidat présidentiel yi nga xam ne retenu dañ leen retenu euh, par le conseil constitutionnel bu ko defee international li muy gis day yaakaar na kat ah les candidats retenus yi kat léegi ñëw nañu te ñett kese lañ yaa ngi dégg ñett dong lañu ñoo xamante ne amuluñ Sénégalais yi benn njëriñ ñoom ci seen jëmmi bokk sax xamal ne ñooñu amuñu luñ njëriñ Sénégalais yi mais ñu boole leen nag ñi nga xamante ne seen gémmiñ day nàcc ak ñi nga xamante ne. jëm sax élection présidentielle taxu leen a jóg ñoom ci mbaboor mi lañ ci mariirandoo yi lañ ñu jox leen titre bu ngand devant l'instance internationale ci moment bu nga xamante ne tey la nit ñi dem élection dem vote ji amuñu élément de langage boo xamante ne taxaw amuñu taille de l'opposant bu mel ne Ousmane Sonko ou de Diomaye bu mën a génn nga xamante ne bu génnoon taxaw benn kàddoom démb même boo dee xool ci manifestation yi mais élément de langage gis nga communication dafa am solo mbooloo mi ni ñu ak langage bi nga xam ne moom la waroon wax ak ñoom daanaka comme yàlla ak yàlli waaw ngi mel ne conteneur bu nga xamante ne voilà ab dina fa koy dawal moo tax il faut condition yëpp mat pour nga mën a jàmmarloog nit ki nga xamante ne dafay calculer avec ses moyens état dafa am ay moyens am ay éléments de langage yu muy utiliser yu nga xamante ne loolu rek nag la ko réew yi nga xam ne ñoo koy teg pression di jàppe tant que ñoo ngi koy dégg mu wax wax bu nga xam ne dafa mel ne respectable à chaque fois ñoom loolu la ñuy yaat jàpp lool la seen médias yi di tey loolu la ñeneen ak ñeneen di jàpp ci moment bu nga xamante ne ñenn ñi ñi ngi jóg di wax sax sonk ma ngay négocier ma ngay def négociation ak moom ndangam nangam ta ñoom yéen ñoo gën a xam ne sonk nekkul ci négociation waxut ak moom sax waa ji moom moo uti utiliser waat loolu pour gën a nooyal Euh, situation bi ba nga xamante ne fi mu toll nii aw xal la tey maanaam potaas bu tàng la tey di ko wal di ko wal pour wann ko xam nga lan mooy destination mooy wann potaas bu tàng bi moo tax bis bu paree ci euh, li nga xamante ne moom lay def ni gëm naa ne li Amadou Ba wax moom mooy nekk moom mooy cour constitutionnel boobu nga xamante ne daf ci am lu ko ci metti gis nga Macky Sall conseil constitutionnel boo déggee ni muy waxee entre les lignes boo ko liiree di nga xam ne conseil constitutionnel am na lu ko ci metti li tax ñu tuumal ci deux sages ministre bi nga xamante ne moo ne ko ministre de la culture et de la bonne gouvernance muy Latif Coulibaly démb wax na wax ju sori wax ju nga xamante ni boo ko déggee di nga xam ne wax naa ko xolam waaye ci biir wax ji man li ma ci dégg mooy euh, liy xañ ci côté neexul dara waaw parce que moom dafa mel ne dañ ko cee tudd comme quoi que moom moo jëli woon xaalis boobu doom joxe ñu ko loolu sax moom yeneen la xëy na avec le temps mun naa feeñ mais li am solo ba am solo rek mooy conseil constitutionnel bi boo moytuwul ci cour constitutionnel foofu lay mujj te pour mu mujj ci cour constitutionnel loolu sax am na ci pays arabes yenn yi ah, nga xamante ne euh, maxkamatu dastuur euh, mais yooyu nag pays yi am démocratie yaakaar naa ne duñ ko faral bi am na sax bi réew yu koy def mais buñ ko doon def bàyyi ko sax ci sens bi nga euh, au vrai sens du terme nga xamante ne dafay am indépendance loolu sax baax mais fini nii des dee xool instance président de la république moo leen nommé moo leen conseil constitutionnel sept sages lañ maanaam juróom-ñaari Kangam, lañ juróomi kàngam yëpp président de la république moo leen di nommé yi président assemblée nationale moo leen di moo leen di andi mais dafay proposé waat yeneen quatre yu nga xamante ne dañ ciy génnee deux jox ko président de la république mais président assemblée nationale bi kan moo ko nommé du président de la république kon kay daanaka les set sages yëpp moo leen nommé mais dañoo dem ba yàgg xam nga foo nekk rek dina am ñoo xamante ne finalement dañuy bëgg bañ wala ñu bëgg bind ci seen page histoire lu nga xamante ne dina siggil seen waa dëkk. mais dafa mel euh waji ji bàyyiwu leen noonu moo tax gëm naa ne bu paree ci li muy tuddé ay pacification de l'espace public djema andi jamm djema calmer djema def ay amnistie djema def ay grâce def liberté provisoire bu paree ci yooyu yëpp ba de mu delloo siwaat yeneen élément de langage ne ah président bi kat ba muy wax daf ne woon ci période bi nga xamante ne moom la nekk mais nekkatul ci période boobu léegi ki toog nii dootul Macky Sall en tant que président bi nga xamante ne deux mandats la fi a am mais beneen Macky Sall la bu nga xamante ne dafa gis ne vide juridique daf fee am léegi mu toog na pour combler ba boobu le temps que sénégalais yi di trouver parce que sénégalais yi mënaguñoo juboo ba léegi te nee na moom bëggul a bàyyi noonu réew mi muy tasaaroo ci ay loxo mais foofu lay mujje foofu dong lay mujje bu ko defee nit ñi di dem nekk fii di dem ak gauche ak moo tax il ne faut jamais ñu nekk ay xutaan ay euh, ay ay jur gu nga xamante ne fu nekk la ñuy dem jëm. nga xamante ne amuñu benn sàmm bu nga xamante ne moo leen di jàppale pour ñu mën a xam ban destination lañ war a orienter seen bopp moo tax élément de langage yi dafa am solo te ci seen biir am na ay boroomi xam-xam yu nga xamante ne mën nañ ko te mën nañ koo def te jàpp naa ne war nañu def maximum possible pour loolu nekk ñun Aja Bikin merci à Bikin merci à Bikin Bikin Lansar taboté leen live bi ngeen avancé partagé leen ko mu avancé partagé leen ko partagé leen ko mu avancé ñi ngi Bikin Lansar Bikin Lansar la Bikin Lansar la Bikin Lansar la ñu ngi en direct Pikine Lansar Pikine Lansar Pikine Lansar buux leen ko mu dem buux leen ko mu dem buux leen ko buux leen ko mu dem Pikine Lansar waaw waaw waaw Pikine Lansar la Pikine Lansar